dégg fu mu amee ndam euh, combat bu mujj bi j'ai eu écho qui s'est donné à fond ci préparation bi malheureusement mu mu daanuwaat euh, qu'est-ce qui se passe avec ce lutteur là ba Cheikh bi ko wax. Cheikh aywa. aywa <laughs> Grégoire yaa ngi may yaa ngi may sànni yaa ngi may sànni peut-être suut bi quoi moom moom moom xam nañu nit moom mooy moom mooy moom moo xam làmb bu baax bañ nag sax chaque week-end. day doon joal fajut dem seetaani làmb bu ne bu mujjeewul nekk promoteur dina ma jaaxal wala mu yor ci mekaay xam naa ni daal am na ñu mu yor seen seen seen i yi da nga koy da nga koy <laughs> dégg gars yi da koy dégg ci muy wax ci football mais man jàpp naa ni Grégoire làmb sax la gën a xam waaw comme un bon séeréer nag bu waxee ci làmb war na cee war na cee mën a wax. voilà dañuy déglu ay ay ay analyse yu ci ay analyse yu def mais cas Papa Boy Djiné nekk na cas boo xamante ni vraiment après sax da ngay am yërmande ci moom parce que nekk un jeune. pétri de talent quoi qu'on puisse dire même bu fekkee daanu mën na lu muy def mën na làmb te gis nañ ni yi mujj yëpp euh, da ci def fulla def ci fayda parce que gars yi da nga moom il ne s'entraîne pas amul fulla lu muy def joxul gëdd làmb ji mais quand même sport nag moo moo di demee noonu da ngay tey da ngay ñëw daan suba nga ñëw daan daanu rek moo tax ñuy wax. voilà mais boo noonu la morom yëpp di entraîneur. huit am xaw ma Greg xaw ma sax défaite ah. mu ngi ci sixième défaite. Eh, ah. loolu <laughs> c'est c'est c'est c'est wax que ni sax peut dafa am dafa am tour moo tax mu am six défaites pare ñu continuer di ko tëggal di ko tëggal ay combat mm. mais am na défaites yi nga xamante bu doon beneen mbër la moo enchaîné six défaites. gars yi daal di fàtte gars kii vraiment moom na nga ko tegee ne nga ko lu nga ko war a conseil rek mooy que ni dara jeexul c'est un jeune euh, il a tout l'avenir devant lui na gën a entraîné waat gën a xool aussi yan adversaire lay jël gis nga nit sa àdduna tey man bu ma jëlee ku mel ni Pape Malick mu daan ma damay dem xool Grégoire ma jàpp ne kii kat war naa mën a yomb ci man même bu fekkee ni sax kenn xamul comme ni nga koy waxee làmb moom reenu ñàmbi la kenn xamul fan lay fan lay fan lay. yi wala ñàkkum combat yi parce que tam toog benn bu gudd doo am combat bu ñu ñëwee tam. Euh, ne naam ne booy dem di taamu ki ngay bëre ak koo dul bëre. daa fekk combat yi loolu loolu xam nga lu ñuy fàtte xam nga lu ñuy fàtte ñu hmm. mooy que ni làmb ji du du am arène national kese. mbapat yaa ngi fii nii. chaque weekend tournoi yi ñu ngi fii chaque weekend dafay am. parce que boo nekkee boo nekkee boo amagul yenn yenn bon yenn yenn niveau yi ay ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye boo mënee bëri ci mbappal dama nga bëri ci mbappal yi ñu jàppee ko entraînement rek daanaka sax amaana mëneen la daan kenn du xam ne daan nan la. xam nga am na xaalis aussi bon. bu baax mbappal mbappati. am na xaalis. ah mais dinañ joxe nag ak saaku ceeb daal. non mais eh, léegi mise yi. dem na ba ci 10 hmm? léegi mise yi dafa dafa dafa dafa am xaalis. da bëriwul dépense. waaye ñi nekk arène actuellement ngi ci mbappati mais boo gagné samedi tu peux gagner 3 millions samedi dimanche nga dem jëlaat beneen 3 millions. waaye est-ce bëri dóor may na la loolu tey sur une saison. mais Reug Reug su ma juumul loolu doon def ah, mais Reug Reug yooyu fan lay amee Mbappar yi ñuy fay 10 millions. Adrien Senghor chaque fois ñu ah dem <laughs>